دائما للكرام لدى أوجالهم فلتكن لي ولتدم بشري إليك يا خير وهاب مددت يدي في البر والبحر سخر الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci bis bu tedd bi leen doolee ndokkeel ci xew-xew bu màgg bi ñu bàyyi ko muy njeexteel weeru koor di ndokkeel ñépp di ñaan sunu boroom subhaanahu wa mu nangu ñu mbooleem suñuy jaamu yàlla jéggal ñu mbooleem suñuy rëcc rëcc kàttanal ñu ci ñu sax ci ay ndigalam ak bàyyi ay tereem di ñaanal kilifa gu mag gi suñu boroom yàggal ko ci suñu kanam te wéral ko te kàttanal ko dëgëral ko ba li mu yéene lépp ci liggéeyal sëriñ bi ci diine ji ak xeet wi mu def ci lu kawe njortam di ko ñaanal kilifay diine yëpp ak bokkam bu baax yëpp waaye di ñaan ñun ñëpp itam ñun julli yëpp ak ñun taalibe yëpp sunu boroom tawfiqal nu ci ñu ànd ak sunuy kilifa ca na mu gën a rafete ci topp ndigal ak bàyyi ay tere yi dëppook ndigal yàlla ak i tereem ginnaaw loolu baaxoo woon nañu saa yu ñu génnee ci eh, wax julli ki ayit kori mbaa ñu jël waxtaan wi sëriñ bi waxtaan jëmale ko ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yépp ma nafaraat ko jéem koo dégg-dégglu ngir solo si nga xam ne moom lay làmboo euh, ak euh, yiw yi nga xam ne moo ci nekk ci buñ ko déggee te jëfe ko moo tax nag tey jii ñu bëgg a dellusiwaat ci waxtaan wi sëriñ bi defoon ci korite gi ci jullikaay ba tomb yi mu ci waxoon ñu dellusiwaat ci taxawaat ci bàyyiwaat ci xel nafaraat ku jéem koo dégg jéem koo dégg-dégglu ndax mu doon ci ñun ab bind ak fàttali ku ñuy teg ci suñu kanam di ci dox sëriñ bi ci biir waxtaan wi waxtaan wi dafa mel ni ci benn tomb rek la jëm boo xam ne la des ci waxtaan wi yépp ca tomb boobee la jëm la la aju tomb bu waxtaan wi ginnaaw nuyoo baag cant ga ak baal àq gaag digle ñu balante àq daf ko jëmale ci ne nanu farlu nañ góorgóorlu nañ góorgóorlu ci xam bi ak dund ko nañ góorgóorlu ci xam sëriñ bi ak dund ko loolu kon mooy tomb bu waxtaan wi muy baat boo xam ne wax na ko ay yoon yoon yoon diiru bi mu toogee ci jotaay bii mu nekk ak léegi yàlla na ko yàlla gën a yàggal te gën a ko saxal waaye bii yoon nag euh, daf ko daa wax rek bàyyeenoo ak sunu dégg ku nekk di ca dégg na nga la nga tollool waaye bii yoon nag daf ñu ko firil wax ñu ci jegeel loolu mooy lan xamal nañu kan mooy sëriñ bi ci liñ ci mën a xam xamal nu suñ digganteek moom euh, xamal nu itam nu nuñ ko war a dunde it xamal nañ ko buñ ko xamee dund ko it lañu xam nga ak dund ga di jariñ waxal nañ ko kon mel na ni bu tomb bi waxtaan wi nekkee xam sëriñ bi ak dund ko euh, tomb yu nekkaat ci biir ñetti tomb rek la mooy kan mooy sëriñ bi lan mooy suñu digganteek moom euh, ak buñ ko xamee ak nan lañ koy dundee buñ ko dundee lu ñuy jariñ mooy ñeenti tomb yooyu xam sëriñ bi wax nañu ne sëriñ bi du ku ñuy xam dëgg-dëggam ndax ëpp na xel lu ëpp xel nag xel mënu koo xam xel moom lam mën a xam mooy lam peek waaye la ko ëpp sut ko mënu koo xam sëriñ bi nag foofu la nekk kon jëmmi dëgg-dëgg lan mooy sëriñ bi du lu ñuy xam di ko jéem a pekk ndax raw na xel la ma xoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru loolee moo ko daal moom waaye nag nee na euh, xamal nanu li mat a xam sëriñ bi ci boppam nee sëriñ bi ci boppam xamal nañu moom ci boppam li li mat a xam li ñu war a xam ñun ci moom xamal nañu ko mu nekkoon sëriñ bi ci boppam rek liñ ci war a xam ñun nga xam bu ko xamee ba jàpp ko luñ ca dolli mu doy mooy nañu xam ne eh, sunu boroom a ko tànn ci biir jaam ñi jiital ko ngir moo wan nit ñi niñ war a jaamoo yàlla الرسول al ñàkk xam ci sëriñ bi te buñ ko xamee luñ ca dolli mu doy mooy ñu xam ne kon moom sunu boroom moo ko tànn ci biir jaam ñi jiital ko ci seen kanam ngir mu wan leen nuñ koy jaamoo kon loolu mooy mooy mooy sëriñ bi nee na loolu nag mooy sunu digganteeg moom kon su sunu digganteeg moom mooy ku yàlla teg la ci sunu kanam jiital ko ngir mu wan ñu ni yàlla bëgg nu jaamoo ko noona nee loolu mooy suñu diggante moo nu booleeg moom kon li nu war a def bu ñu xamee loolu ci moom mooy kon ñu nekk ci li mu ñu nekk kon xam gi mooy loolu rek bu defee dund gi nag dund gi kon nee na mooy ñu nekk ci li mu ñu nekk li ñu nekkaloo mooy jaamu yàlla bu dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mi sunu boroom jiital ci sunu kanam mu din woon ni ñu war a jaamoo yàlla mësta boole boroomam ak dara ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam gépp da ko jox yàlla ba mu jeex tàkk lépp mu ànd koog yonent bi sallallahu alayhi wa di topp ci moom fu mu teg tànkam mu teg ko fa di roy ci moom di ko topp kon noonu la la la defoon kon nu it li nu war mooy nekk ci mu nekk loo mooy ñu topp ñu ñu ñu ne foofu di jaamu yàlla jaamu yàlla gu dëppook sunna siyent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne nag loolu ci boppam mooy jublu jëmmi yàlla jublu yàlla da du àdduna gu ma sëkk wan ko ginnaaw dara du la saf ci àdduna nga jublu yàlla jublu alaxira te nekk ci lim ñu nekk loo kon loolu mooy dund gi dund sëriñ bi kon mooy dëddu àdduna wan ko ginnaaw dara bañ laa saf ci àdduna sa yit yi yëpp nga jëmale ko ci àlla jëmale ko ci alaxira nekk nag ci li ci li ñu lim ñu nekk loo te mooy jaamu yàlla gu dëppoo ak sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon leneen loolu mooy dundu sëriñ bi loolu nag mu wax ne bu ñu ko defee ku def loolu ku jublu yàlla jublu yàlla gu mat sëkk jublu yàlla ak alaxira sa yitte yëpp nga jëme ko fa àdduna dara safu la ci su boobaa doo tala xëccoo doo tala yéene kenn lu ñaaw sàkkantuma di di wax lu ci lu di ko wax di ko ko wax maa nga di ko ko def kon loolu bu ko bu loolu bu ko nit xasee def rek kon dootul tal xëccoo dootul tal ŋaayoo dootul tal yéene ab nit ab safaan waxuma di ko ko jéemal kon loolu bu amee kon mooy jur jàmm kon ñi ñëpp buñu maasee ci loolu jàmm rek mooy daal di tasaaroo fitna daal di jeex jafe-jafe àddina yëpp it ci diggante jaam ak moroomam day daal di jeex mu xamal ñu ne jublu yàlla googu nag ak àllaaxira ku ko def sa yit yi yëpp nga jëme ko ko ba mat sëkk soo ko defee loolu day mel ni euh, da ngaa wan ginnaaw àdduna waaye nee na wan ginnaaw àdduna du bañ a lekk ak bañ a naan ak bañ a dëkk ak bañ a am bañ a bañ a fàggu bañ a denc du loolu waaye li àdduna laaj ci jaar ci ay sabab danga koy def waaye nag doo ca jublu dara lu may sàkku lu lay jegeel suñu boroom ak lu lay may eh, ngërëmam loolu ngay mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy def ga nee na loolu nag boo ko defee suñ boroom ci xereñam ak kàttanam boo jubloo yàlla ba mu jeex tàkk jox ko jublu àllaaxira du la xañ dara ci li nga waroon a am ci àdduna lépp loo bëgg loo waroon a am ci àdduna rek loo xam ne ña def seen àdduna muy seen yite ña ngi koy am yow la nga ca war a am danga ko jot jublu gi nga jublu yàlla gor gi nga woon àdduna ginnaaw du la xañ dara ca la nga waroon a am euh, ndegam dëggal nga ca tey nee loolu bu ñu ko defee ci la suñu texeeg tey nekk te la suñu tax alaxira nekk ndax su boobaa dootuñu ragal dara ci ay pakki pakki àdduna ak i jafe-jafeem ak i loram ak i naqaram yooyu yëpp dootuñu ko ragal ndax euh, doy doyloo gi ñu doyloo yàlla doyloo seen bi ci digganteem ak boroomam loolu mooy tax sunu boroom moo ñuy daal di taxaw ci barkeb sëriñ bi ba lépp luy lore mu dox suñu diggante ak moom waaye lépp luy njariñ it mu ñoddil nu ko nga xam ne kon su boobaa li ñuy wax ko am ku du lakk moo ñu daal di dal suñu suñu yitte jëpp day doon jenn mooy jaamu yàlla gu ànd ak liggéey sëriñ bi waaye nag su boobaa la nga yittewoo lépp nag ci lu lay fanqal lor ak mbaa mi la ñoddil njariñ loolu moom sunu boroom ci boppam moo la cay taxawal moo la cay wuutu di la ko defal ci barkeb sëriñ bi euh, kon loolu bokk na ci njariñ yi nga xam ne tudd na ko ne bu ñu defee lii mu wax moom mooñ cay dikkal kon sëriñ bi ci waxtaan wi delloowaat nañu ci sunu boroom delloowaat nañu ci sëriñ bi xamal nañu taxawaayu sëriñ bi mooy taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tànn jiital ko ci jaam ñépp mu nekk ndawam di jot li ndigal yàlla ak i di wane ni ñuy jaamoo yàlla ginnaawam suñu di sàkk ay ndaw yuy wuutu yonent boobu ci liggéey ba yegg ci sëriñ bi mu tànn ko it jiital ko ci jaam ñi mu wuutu yonent bi sallallahu alayhi ci liggéey boobu nekk kon ku yeesal diine kon loolu lañu xamal ne mooy taxawaayu sëriñ bi loolu moo waral kon suñu digganteek moom mooy ay jaami yàlla lañ war a jaamu yàlla suñu boroom teg ko ci suñu kanam euh, ngir ñu def ko suñu wasee ci diggante suñu digganteek moom euh, di ko topp di ko roy ci su suñ kem kàttan bu ko defee lañ yaakaar itam ci suñu borom lépp ñu di ko jaare ci moom te xam ne doy na sëkk sëriñ bi doy nanu àdduna doy nanu àllaaxira nee na def dara daa mënta ñàkk moo tax ñuy def dara waaye nag kenn yàlla indi wuñ fi ngir ñu toog loo xam ne dañoo indi ñu jaamu ko kon loolu mu fi ñu indee dañ caa war a nekk waaye nag lay suñu yittee tey ak ëllëg buñ nekkee ci li ñu fi indi rek loola moom moo nu koy gàddul moo nu cay moo nu cay nekkal kon kon xamal nañu ne eh, jublu yàlla du mën a am it te dëddu àddina amul ndax nit mënta boole jublu àdduna ak jublu yàlla de su leen boole kon kii jublu yàlla moom day dëddu àdduna woon ko ginnaaw dara bañ ko ci sax mu jublu boroomam su ko defee ci lu mu gën a sax ci loolu nag ma ngay gën a xam sëriñ bi ma ngi koy gën a jege ma ngi koy gën a dund kon mën nañoo wax ne daal ci kàddu yi sëriñ bi wax ak ñun muñ loo xam ko xoolee tolloo naag jamono lii rek lañ war a xam ci jamono jii ci lañu war a jàpp bu ñu ko defee moo ñuy lijjantil suñ jafe-jafe àdduna yëpp moo ñuy delloosiwaat ci suñ diggante suñ boroom delloosiwaat ci suñ diggante sëriñ bi delloosiwaat ci tam ci yoon wi nga xam ne moo ñuy musal ci jafe-jafe àdduna ak i pakkam ak i ak i ak jafe-jafeem kon yàlla na ko yàggal ci suñu kanam te wéral ko te kattan la ko ndax nii mu koy waxee rek moom noonu la koy dundee noonu la koy dundee ci kemuk déggam ak ci kem kattanam kon ñu nit nañ jéem a roy ci moom ci suñu kem kattan yàlla boole nu fi yàggal nu te taw fiixal nu ci barkeb sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 أشهد أن لا الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله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 دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم wa ridwan min allahi akbar dalika huwa alfawzu alazim ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من, إخوة من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات مقام الرأس في أعضاء الذات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 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلة لربكم ورضائه توحيده وإدامة شكره وهنائه وصيانة ودائعه وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية في كل بكرة وكل عشية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 وفقنا الله وإياكم لطاعته وأتم تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه آمين يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat saatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah akbar سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهداه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما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 هل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله سمع الله لمن حبنا ولك الحمد الله أكبر الله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 allahu akbar sami allah rabbana laka alhamd allahu akbar asalaamaaleykum.